ñi ko ay jafe-jafe ci njàng mi lu jëm ci mbirum mathématique conseil bi ëmb ay acteurs ak ay partenaires enseignement privé bu inspection de l'éducation des Almadies daa dina amal ab atelier ngir rekk gën a dooleel ay jàngalekatam ci mbir mi. bon discipline bu xam ne bi dañ ko mës wax ne dafa jafe moo tax nag ñu ne nañ ñëw parce que am na approche boo xam ne bi APC approche compétence wax nañ war nañ war a mën a gëstu lu tax mu jafe résolution des problèmes bokk na ci li nga xam ne ni jafe-jafe la ci jàngale gi nag inspecteurs yi kat ñëw leen jafe-jafe dañ koy solution bu weesoo mathématique formateur yi ñëwaat nañ itam lu jëm si wàllam science méngalee ko xarala yu bees yi science bi mooy SVT PC tout cela dañu war a former te école bu ndaw nga xam ni école élémentaire mais moom moo war a euh, former euh, l'esprit d'abord technologie bi aussi parce que ci mbir xarala yu bees yi lañ nekk te loolu yëpp il faut des scientifiques il faut l'esprit scientifique. il est éducation. liñ bëgg rek mooy ñu xoolaat programme scolaire bi. buggee dooleel xale yi. il ñu seetaat programme yi am na ci loo xam ne lii wax dëgg yàlla suñ ko seet ko fële ah, dinañ mën a wéy. maa ngi ñu ngi koy junj déjà. ñu dëgg dëgg lañ soxla ñu conseil des acteurs et partenaires de l'enseignement privé des Almadies daal dina rafetlu bu baax teewaayu jigéen yi ci bile atelier ci bëccëg bi nga xam ni addina bi def ko jagleel jigéen yi ci mbirum mathématique